ali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi salaamaaleykum mbokki internet yu Kéwoulo TV maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen plateau tey nag ñu fas yéene waxtaan benn mbir boo xam ne mi ngi jëm ci kii di Doro Gueye Pape Doro Gueye xam ngeen ko ñu gën koo min ci PDG tey nag gis ngeen journal yu bari xëy nañu wax ci moom jëmale ko ci wàllum mbir moo xam ne wàllu escroquerie la ginnaaw bi ñu ko arrêté démb fële nga xam ne mooy hôtel bu teeru bi ci loolu nag Kéwoulo TV ñëw pour apporter leen ci quelques détails ñuy fàttali nag Papa Doro dafa demoon voyage fële nga xam ne mooy France ñëw na nag boobaak léegi def na ay fan nekk fa nga xam ne mooy hôtel bu teeru bi foofu sax fa lañ ko fekk teg ko loxo section de recherche ñoom ñoo ko teg loxo joxoon ko une convocation bo xamné euh, c'était à répondre dès la réception donc ci lool ci lañ andé ak mom yóbbu ko léegi nag ñuy léral fofu ne convocation bi la convocation bi nak dafa am ben plainte bo xamné ben homme d'affaires bu wuyu ci turu zakilullah Sow moko déposer déposé Zakilulaay Sow nag nekk na ben homme d'affaires bo xamné peut-être nit ñi miñu ko lool

ñu ngi koy toppee nag li nga xam ne mooy yi mbir yi nag ni mu demee mooy ki nga xam ne mooy Pape a Gueye dafa doon yëngatu ci wàllu suuf joxante ak suuf maanaam moom la séqoon ki nga xam ne moom mooy Sakilu Laay Sow taxoon nag mu jaay terrain boo xam ne ni ci xibaar yu ñu am Sakilu Laay Sow nee na moom moo ko moom ci ay ay parcelle am la bokk biñ ko évaluer nag mu ngi toll ci un milliard deux cent bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne am nañu ko Pape nag bi mu jaayee terrain bi joxul ki nga xam ne mooy moomoom moom terrain bi xaalis bi ginnaaw loolu sax jéem na ko jox xaalis ci benn chèque boo xam ne gis nañu ko mu toll ci un milliard deux cent chèque bi ñu def ko ci turu euh, Sim Truslox SUR la ñoom ñoo ko émettre jëmale ko aussi ci société bi nga xam ne mooy Sirac Financial Holding bu nga xam ne mooy Sakirulaay Sow moo ko moom sec bi ñu ngi ko def depuis le 22 mars 2022 mais chèque bi impayé dafa am retour loolu nag ci loolu ci la nag ki nga xam ne mooy Sakirulaay Sow activé waat ñi nga xam ne mooy justice pour ñu leeral ay mbiram wala ñu delloo ko xaayisam loolu nag moo waral ñu jàpp ki nga xam ne mooy Papa a Gueye entendre ko mu nangu tamit ne mbir yi moom moo ko def donc dafa mat ñuy leeral ne Papa a Gueye ci kanamu enquêteurs yi nangu na ne mbir yi moom la ci loolu sax ci la proposé na ci xibaar yu ñu am ne mën naa joxe li nga xam ne mooy 500 million pour ñu bàyyi ko mu ñibbi ci kanamu ay avocat am gendarmerie tamit loolu yeeyu ci yabiwu ci te ki nga xam ne mooy plaignant bi di Sakiroulaye Sow d'accord ci li nga xam ne moom lañ ko proposé wala ba nii ñuy waxee d'accord gu ci moo tax enquêteurs yi mujj ko placé li nga xam ne mooy garde à vue donc kon jamono yi may waxee ak yéen ki nga xam ne mooy Papa a Gueye mii fële ci section de recherche ci régime de garde à vue en attendant nag ñuy xool la suite ba xam lan la ciy procureur de la république di wax ba xam médiation pénale daf ciy am walla ba xam dañ koy yóbbu dañ koy présenter ñi nga xam ne mooy parquet bi ñu xool nuñ koy def loolu lépp fekk ay waxtu walla fekk ay fan dinañ ci xam dara ginnaaw problème boobu nga xam ne mooy affaire Pape Doro Gueye am na benn affaire boo xam ne tamit tey mbokki internet yi gis ngeen ko muy la fille de Mansour Faye mi nga xam ne ñu ngi koy tudd ci benn mbir ci fàttali ay semaine ci ginnaaw ki nga xam ne mooy Aïssatou Faye nekk doom ci Mansour Faye Aïssatou Faye nag nit ñi miin nañ ko ginnaaw bi nga xam ne mooy BBC def na ci moom benn documentaire doon wax ay biens yoo xam ne moom moo ko moom ba mu xawoon a jaaxal ñu ci bëree bëri cette fois-ci nag gendarmerie la amoon nag ay jafe-jafe ndax dañ ko arrêté woon ginnaaw bi ñu defee benn fuy ci otom fekk fa xaalis bu xaw a takku ñu ne sax xaalis bi boo ko xayma ëpp na vingt cinq millions ginnaaw nag bi ñu ko jàppee ay mbiru corruption lañ ciy tudd ndax moom mi nga xam ne xale bu jigéen la nekk doomu Mansour Faye bi ñu ko jàppee ci xibaar yu ñu am dafa xawoon na tiit ba jot sax proposé ñaari agent yi nga xam ne ñoo ko jàpp benn somme d'argent bu am importance pour ñu bàyyi ko mu dem agent yi tamit nangu loolu bàyyi ko mu dem ginnaaw loolu tamit moom mu informé ki nga xam ne mooy papam di Mansour Faye le ministre Mansour Faye bi nga xam ne xam ngeen ko papam tamit ci la saisir ñi nga xam ne ñuy autorité yi nga xam ne ñoo jiite police ñoom tamit ci lañ demaat xool agent yooyu noonu ñu sanctionné leen maanaam ñu suspendre leen pour le moment bi leen suspendre nag ñu ngi ci sous suspension ñaari agent yooyu noonu mais njort nañ ne sax ñoom mën nañoo dem ba radiation fekk la ci fekk leen ci pour faute léegi nag li xaw jaaxal ñu bëri mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy les corrompus wala ñoom ñooy les présumés corrompus ñoom déjà sanctionné nañ leen parce que dañu leen suspendre te peut-être mën na leen mën na leen a raje ci police mais ki nga xam ne mooy la corruptrice jusqu'à présent amul dara lu ko ci topp muy mbir moo xam ne boobu ba léegi nit ñi ñu ngi ciy commenté ñàkkul justice dana ci wax parce que mbir la mu xaw a doy waar ku ñu jàppee ak euh, ku ñu fekk ci otom xaalis de un deuxièmement bi aussi mooy corruption bi nga xam ne euh, am nañu jàpp ne c'est établi donc loolu nag mu nekk loo xam ne yoon am na ci wàll ñàkkut fekk ay heure wala fekk ay ay fan aussi dinañu gis ne benn développement boo xam dina ci am xam naa loolu daal lañ ne woon nañ leen ko indil ginnaaw bi ngeen ko xëyee di ko di gis Kéwoulo nag boobu ba léegi ñu ngi koy def ay investigation jéem xool naka la ñuy tegee seen loxo dara moo tax ñu ne woon nañ def vidéo bi jox leen yenn détails yi en attendant aussi bu dossier yi évoluer rek ñu ñëwaat ci ak yéen ci yeneen explication moo xam bu Pape Dora Gueye la moo xam bu Aïssatou Faye doom ci Marème doom ci Mansour Faye di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen émission. afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kam olungali kontonkolena jaliasilola iye kambenka vo dumunya voledi